maam alaaji a ngi dem de yéen a bëgg xam yonent bi wala bëggu leen koo xam xam nga tey nag lan laa bëgg Sidi waxtu waa ngi dem xam nga lu ma bëgg dama bëgg ka toog biir këram bu géntatee ki mu gént mu xam ndax ki yonent bi la du moom te du jar muy dem cib sëriñ déggoo ma de booy dox ba dajeeg nit nga mën a xam ndax kii ma dajeel yonent bi la war a du yonent bi kii ma dajeel am na lu mu nuroog yonent bi wala amul lu mu nuroog yonent bi kii ma gént biig bi may nelaw ndax yonent bi la war a déet gis nga bindu Seydi Aji malik bii buntam bii bu ma ko tojee fii tey ba tas ko ba nar ko ba séddale ko adduna bi yëpp ku tëddati gént bu la neexee boo yeewoo bul dem ci sëriñ boo fàttewul li ma la wax billaay di nga xam ki nga dajeel ki nga gént yonent bi la baadu moom dinaa la wax nopp ya dinaa la wax bët ya dinaa la wax bakken ba dinaa la wax وخ يمين جي دينا لا وخ جيبي دينا لا وخ بوبي دينا لا وخ نياري لخي دينا لا وخ ديكرت نياري مباغي لو فاني دينا لا وخ تايبي دينا لا وخ لوخوي دينا لا وخ تانكي دينا لا وخ كاروغي دينا لا وخ بارامي يا خم رسول الله على جماركني لله در مجيب قال سائله الكل الرسول بقدر المرسل احتكي مولانا للحمد يخطبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع إلا على الله موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكر واتخذ سبيله في البحر عجبا بقدر المرسل حسين ماجد ابني وخبر لا اله الا الله ايوه ايوه تفسير وصل ba man la de remojé waaw waaw بلين توك لله در مجيب قال سائله إن الرسول بقدر المرسل يحتكمه واي بلين ما بلين ما سرخبي بني نيوكو دي واي نك dimbali len ñu rek ndax émission la jëlal Sidi Kee bul tas yaakaaram kooku ko tàllal ba pare boo ko jëlee rek nga arrêté nag bu kenn joxe waat waaw kañ waaw kañ maa ngi koy ñaan rek ah Sidi moom it di jël ni patt rek ah moom xam na ko de waaye dañuy ni pattiral di jël rek mën naa dem de ama ah, dem lillaahi darru mujibin sama malaaji Malick ne lillaahi est-ce que kéemtaan na yàlla taajub jubla maa ngi waaru man alaaji Malick ah man de waaru na moo Maodo lu la waar mu ni tontu aji tontu bu mën tontu moo lu mu tontu mu ni xaala tontu na dooni xaala wax na xaala tontu na saa ilahoo aji laajam lu mu ko tontu Xaalid ibnul Walid la yonent bi da koo yónni ci benn gàdd benn village mu dem ca village ba di waxtaan ak ñoom ci mbiru yonent bi gaa am ku ni ko waa yow seen yonent bi sif nabiyaka melalal ñu sa yonent bi Xaalid ni ko da ngaa bëgg ma toj ko wala ma tënk ko mu ni ko toj ko Xaalid ni ko inna rasula naka ku ñu yónni ku ne bi qadril mursili ci darajay aji yónni ja la nekk ixtakimi xereñ gi xam nga mooy lan waaw Ousseynou bu ñu nee tey ci plateau spécial Gàmmu président de la république nee na ministre de l'intérieur nee na ministre des affaires étrangères yónnee na préfet Ndakaaru yónnee na gouverneur Ndakaaru nee na ñoom juróomi ndaw yooyu ku ci gën a fort président <laughs> damay laaj de président daa yónni ndaw ka mu yónni sax amul solo waaye moo ko yónni ministre de l'intérieur yónni directeur cabinet am ministre des affaires étrangères yónni directeur cabinet am gouverneur u Ndakaaru yónni adjoint am préfet Ndakaaru yónni adjoint am ñoom juróomi ndaw yooyu ñu daje waa ñoom juróomi ndaw yi bu ñu dajee ku ci ëpp personnalité ki président yónni lu waral mu am lu waral mu ëpp fi personnalité da ngeen ma naan ki ko yónnee ëpp personnalité ñëpp xam nga ki ëpp personnalité mbooleem ñi yónnee bu ñu yónnee ki nga xam ne mu ëpp personnalité ci ñi yónnee ka mu yónni mooy ëpp personnalité ca ndaw ya ñu yónni loolooy inna rasula bi qadri qadril mursil xarañ ko xaalit manu la doon yonent bi déedéet yonent bi mënul doon yàlla waaye mboolem ñu yónnee waate yàlla ci personnalité di ndax kenn du yàlla kenn dong la la tudrikul absaar wa huwa yudrikul absaar wa huwa latiful xabiir yàlla moomu nag ku mu xool ba yónni la kon kay mbooleem ñi ñuy yónni ñëpp yaa ci ëpp personnalité eh eh waa ji ne ko d'accord naa kon ki ko ki ñu yónni ki ko yónni moo personnalité ci ñi yónni kon moom moo personnalité ci ñu yónni waa d'accord léegi nu mu mel nga nii. wa kaana fax fax man abi waaw waaw. wallaahi mursiduna. képp waaw waaw. مرشدنا مفخما غاية التفخيم ذا العصم eh eh eh eh eh xanaa xamoo ne air bii ñuy way mooy air Mouhamadou Lamine Camara nii rek la ko bëggee. nii rek la ko bëggee air bii jaral na ko lu ne. waaye maa ngi ñaanal bu baax jigéenam bi Umu Saramata Taal. ndeysaan gis nga bi ñu nee koor gaa ngi ñëw damaa woo jox ma juróom benni mbubb ba pare jox ma mbubb mu ne li koy ñaw bii ci la bokk ni ma yow guddi ko jot maa yor sa mbubb ngir yonent bi waaye xam nga lu yàlla def publicité wu ma de xam nga lu yàlla def uh-huh. mooy bi ma joxee ba ma encaissé ko waa daara ñoo may ñawal day génn ci daara ji rek duggaat ci daara ji kaar وكان فخما حبيب الله مرسلنا مفخما غايه التفخيم ذا العسام كون مدام غايدو ام سلامه يالا يالا دولي ويرم يالا سام كو تي اركو نون ني نوي تيرال غير يوننتي بي رك صلى الله عليه وسلم ديفو نيو كو غير سونو جيم ناخ موم مام موي سونو سيرينو مام موي شيخون شيخو شيخ الحاج عمر الفوتي كون كوكو بو نيو تيرال غير يوننتي بي نيو نيانال كو غير يوننتي بي مام الحاج مالك ني وكان نكنا خالد اي واخ دي ني يوننتي بي مل سما واجي ما يوني فخمان ماغلا dafa baax ci yónnee booy yónni nga yónni ko am tuuti daraja mais am na ñoo xam ne boo leen yónnee fu ñu toog ku ñëw ñu ne eh booy al ñu siis bi fa muy mujj mooy non man man maa fi toogal gouverneur fekk bind ba la kii nag fax man ndeysaan Abdallah waxoon na ma ko ci kenn damay bañ dugg ci leneen waxoon na ma ko ci lenn mu ni ma diw dafa am charisme ma naan ko nangam ak nangam waaye ba mu ba cappaandaw ga àggee ah. loola am mooy fax man ko am charisme du noonu Abdallah mooy ku màgg nga xam boo ko gisee rek respecté ko xoola Isaaxa mhm. waaw macha allah macha allah wakaana nekk na kan kan da ngay tëb fax man mu fax xaman da nga naan wakaana nekk na xaali tey nettali de suñu waa ji ma yónni wakaana nekk na habibullahi ki nga xam ni yàllaa ko soppal boppam naa ki nga xam ni moo ñuy jubal fax man di ko màgg waaye mu fax xaman ku ñu màggal la nag moom boo nee tëll yem ci moom même boo ko xamul mënoo koo minimiser noo def maggal ko parce que bët yaa rafet kanam ga rafet muy dégager leer gu ne ci moom ak benn xet gu neex guy génn ci moom boo nee tëll yem ci moom noo def defaraat sa toogaay kon mu fax xamal alaaji Maalik képp mu ne xaayata tafxiimi fi ta fi fi màggal mën a yem mooy dayop màggal foo noonu la màgge te noonu lañ koy màggalee zalexi sami boroomuk ñoŋ la yàlla koy ñoŋal boppam kenn mënalu ko dara moom rasulillahi xayru xayrul muxtaar oh, heure baa ngay dem waay jabal de heure bu la neex خير الورى الواو مختار من من مضر واو من التلعلوع بدر في يد وصليا لا اله وجزيا ابدا عنا محمد محمدنا المختار في القيام ووجه خير الورى المختار من مضار من التلألؤ بدر في دجى الظلم يا بوي تنيو كو داغ فوفو ديد كونتينل دي داما لينا يرم تي توغاي بو ياغ بي كون ما دم توتي ووجه خير الورى المختار وجهه

المختار من مدار كنيو تان سي بانو مدار نخت اي مامم خم ген كو عبد الله يكجور عبد المطلب هاشم جوركو عبد مناف قصي جوركو كلاب مرته جوركو كابو لوي جوركو خالد فيرو جوركو مالك ندر جوركو كنانا خديمه جوركو مدركا الياس جوركو مدار مدار اج نزار مدار اقربيها نيو بوك باي موي نزار pàcc pàccu Mudar nag ca la yonent bi bokk moo tax Alaaji Malik ni ki yàlla tànn ci banu Mudar kanamam mi na tëla lu yi badrun weer la rek weer allahu akbar weer xoolal ma lii ni mu rafete bu tàkkee baal ma baal ma am fukki guddeeg ñeent nga xam ni lépp day biriyee leer nañ foo tollu di ko gis ma Maam Alaaji Maalik ne kanamu yonent bi daal weer la te xoola moo gën a leer weer de mais ci àdduna dañoo xamul objet bu gën a leer weer moo tax ñu jël kanamu yonent bi nu roole koog weer waaye li doonoon yoon mooy ñu jël weer nu roole koog kanamu yonent bi ndax yonent bee gën a leer weer te toujours li ngay nu roole moo la nga koy nu roolee la ko war a gën a foor alaaji Malik ne badurun weer la rek mi ne tëlalu i ci ler xati eh xam nga weer bu génnee ci ay biddéew ki ñoom seen xam nga sax leeraay bi dina des waaye fii du ja zulami lëndëm këris benn biddéew génnul nga ne ci àll bu lëndëm jekki rek weer wi ni ràññ noonu muy leere maam El Hadj Malick ne seen soppe bi bu dee tëll noonu la kanam giy mel kon bu ngeen tëdd tëddatee guddi gént koo xam ne kanam gi dañuy raay mel ni benn lampe kese bu ñu taal ci lëndëm bu leen ko laajte xam leen ni seen waaje ngeen gis loo teg El Hadj Malick. na Shamsu Shamsu. waay dem leen waay dem leen. في الأسرة يجري رونق الحق ملنا وصلي يا إلهي واجزيا أبدا عنا كأنما الشمس المختار في القيل لا لك دار جنت جنت كأنما الشمس دانك دار جنت tajri mooy daw fawqa safhatihi ca kaw kanam ga yonent bi leer na billaay boo ko gisee gis ko rafet yàlla yàlla bu la ump xam naa gis nga ko sax waaye yàlla boo tàggoog moom gis ko yombul de parce que xol man nga koo bëgg di wax di coow di coow mais sa xol bu setul ci naafiq setul ci kiñaan setul ci soxar setul ci jël alalu jàmbur naxaate setul ci dóor mbarto billaahi doo gis yonent bi waaye sa xol bu setee wecc jarul nga mu sori jarul wérd billaahi sa xol set wecc nga bëgg yonent bi billaahi booy tëdd di ko gis ka annama shamsu tajri dafa mel ni daal kanam kanamam ga daa mel ni jant rek moo cay daw naan raay raay bu demee gauche dem droite dem gauche dem droite di ler xati ci lexam ba alaaji maa wa fil asirrati ca ras-rasit jéya jéya mooy fii lii wa yajiri ci yajiri ca lay dawe raw naqul izami taawu màggaay yii yëm nag boo ko gisee taar dëgg dëgg dëgg يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم يقولون أنهم ثمت والطول في الوجه يا وصافة السيم bokkul ak siyam yi xaadim yàlla na la yàlla sàmm gëy ndeysaan ku bëgg yonent bi ñoo màggandoo nii maa leen waaye ñoo ànd màgg mu doon way ñoom ñuy way ci ñoom laa jàngi firi daanaka waaye du miin waxtaanu yonent bi foo koy waxtaane ba muy xale ba tey jooy rek ba ba muy jeex day beru fa mu beru di jooy billaay yaa ngi jooy ci ku ko jar yàlla na la yàlla sàmm mamalaaji Malick ne seen soppe ba xaliilu tadwiiri wajihin xam nga léeg-léeg ngay xas nit ni ko ngay def ak sa kanam gu roo xam nga kanam gu roo rafetul kon ndax bu rafetoon doog ko xase moo tax alaaji maa ngi ne xaliilu wajin aji new ji roo roowu kanam la kanam gi roowul ba mel ni bal dafa xaw jël roox jël oval Ya ilaha ya, illallah ya, booy xool da nga naan balu an bal du mooy oval oval waaw moom lay xaw a jël laysa kal samatun laysa kal samatun <laughs> ñaari sayu bokkul la bii sala bii xa Mame ne laysa kalhama hamatun nee na nekkul ca kanam ga ak fuquural xam ga fu xuural mooy lan baal leen ma de damay jàngale nag xasuma kenn li ñu bind ci téere yi rek laay wax ku yàlla dagal mu dal la yàllaay bind ku nekk na ko neex la la koy defee man naam sax man mu def man noonu te xaw ma ci dara waaye daal nabi daal bosam moom lay sa kal samatul alaaji Malik ne kanam nga fu xuuralul woon xam nga mooy lan mooy kanam gu bari yàpp kanamu duut laay boobu la lay jox foo fu mu toll day day niin moo tax moom même bu nit ñi weexee du weex kanam gi day am graisse <laughs> loolu mooy fuquural eh képp léeg-léeg nga dégg benn firikat bu nii wattuulu guddaay fil waji nekk rek ca kanam nga déedéet kanam ga guddul kanam gu gudd rafetul daga naan laysa kalsamatun wattuulu fil waji déet fu xuural ak guddaay fil waji di ne ca kanam nga kanam nga guddul fu xuuralul loolu rek a wax eh alaaji Malik koy waxal mu ni yaa wasaafata siyami yow mi melal melokaani yonent bi ni da koy wax nit ki ngir à peu près mënuñu ko desine mënuñu ko photo mënuñu ko filmer mais à peu près nga war a xam waa ji nu mu mel alaaji Malick nee kanam ga daal rond bi dafa néew alaaji Malick nee kanam gi bariwul yàpp mooy fuquuralul alaaji Malick nee kanam gi guddul moom rasulillahi daa dem bay guddu dem bay rond ci diggante gudd ak foofu la nekk loolu nag kanam gu rafet mooy mel noonu alaaji Malick loo teg mu ni lan تعجل تعجل والحرب من شمال عافيت عافيت بالبقري عافيت ربنا دائما عامل واي ويلين واي ويلين واي مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أغذيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا من بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار أهلا خيواي yal nañu yàlla fayal alaaj Ndiaye moom mi ubbi kër gi ñu ñëw yal nañu yàlla fayal Marème Ndiaye technicien wu 2S yi yal na leen yàlla fay yal na leen yàlla sàmm yal na yàlla fayal ñu ñuy jàppale Chérif Mami yal na la yàlla sàmm yal na la yàlla aar yal na la yàlla may wér yal na yàlla yokk sa fan ci barke rasulillahi samaam waay jóg leen waay jóg leen jóg leen taxaw waay waay jóg leen taxaw waay ay waay jóg leen taxaw waay ay waay jóg leen taxaw waay kooku man la Abbas Baye كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا enfin yal nañu décoration pour nga jël ko yéen ñi seetaan 2S bu leen coupé téye leen ko ci 2S bi mbokk yi barakallahu mbokk yi barakallahu 2S ñu ngi ñaanal Alaaji ñaanal Marème soxnaam ak mbooleem Abdoul Ndiaye ak mbooleem équipe bi yëpp ak direction bi yal na yàlla sàmm leen amiin yaa lii lii alal ju bare bari lañ ciy def pour mu am dëgg la te lépp ñoom la mhm. yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla fay leen nee na alaaji xolu jullit yi ngay seral ci émission yu mel nii ci weeru koor ak lu dul weeru koor ak ñi bëgg a xam seen diine nga may leen occasion ñu ni ko xam billaay bu la ko yàlla fayee adduna bi yëpp xaj nañ ci yal na ko yàlla fay Sidi Ahmed yal na la yàlla fay man xam nga man macha allah dama laa sopp rek te yàlla tax macha allah yal na la yàlla sàmm am na sax ñu naan maag yow dañoo nuroo waaye maa la dàq nag dañ lay jay rek mbaay maa la dàq yal na la yàlla sàmm sama xarit la yàlla boole ñu ñu ngi ñaanal association yi fi ñëw yépp samedi bii di ñëw 21h30 jàpp 22h nii la ñu koy defee incha allahu association Thiès. Ceesuwaa yi nekk Dakar ñoom la ñu invité ñooy ñëw ci plateau bi incha allah ñu defewaat ko nii. bu soobee yàlla. Haaji Isaaxa yal la yàlla fay ci barke rasulillahi mbokki jullit mbokki téléspectateurs yi mbokk mi fa tabarakallahu kera daf fi ñëw. Ahmed Samba Gueye daf fi ñëw bëgg décorer Chérif Mamine Haydara ci lii nga xamante mu ngi koy defal jullit yépp Chérif ni ko nag ba samedi. ndax booba tass nañu inshallah nga ñëw indi ko mu ñëw indi ko ngir yàlla defal ko julit yëpp mboolem ñi sétane télévision bi di 2S yàlla yàlla fajj seen aajo ma sha allah ma sha allah way wax leen subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah joxal tafsir wallahu akbar mooy remplacer tàccu bi yal na nii ñu ànde nii yal nañ ko ànde ba aljana amiin yaa rabbal alamin te bu ñuy dugg yal nañu ànd ak yéen ci barke yonent bi gaañi nii rek nii rek ba aljanna insha allah yal nañ ko yàlla sàmmal amiin yaa rabbal alamin mm. rabbana aftah baynana وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين. اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين آمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا آمين. وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم اغفر أموات المسلمين اللهم ارحم أموات المسلمين اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا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 بنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين كلام قديم لا يمل سماعه تنزى عن قول وفعل ونية به أشفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي فيا ربي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي بمحمد وببنته وببعلها وابنيهم السبتين أعلى من الهدى وبصحبه والتابعين لهم فهم ساداتنا أهل المكارم والندى آمين يا رب العالمين